jongante bi des étudiants et élèves Sénégal moo ko tëgg mu nekk ñu def ci fête d'indépendance bu seeni le but de cette activité est activité bi li ko tax a jóg mooy dajale communauté bu centre Afrique ndax date bi moom lu symbolique la ndax mooy sunu fête nationale la. te loole dañ ci ànd ak kontante te occasion la ñu mën a fësal suñu kontante jaarale ko ci suñu communauté. la joie qu'il y a ñu dalal ci yeneeni dëkk yi bokk ci mbootaayu semag ni ki Gabon Congo ak Tchad ñu bëgg gën a dëgëral mbokkoo bii di dox ci diggante réew Afrique yi. c'est une joie immense pour moi. Euh, waaw contentement bu yaatu lañ ci am euh, ci man mi nga xam ne la ñu invité Tchad ak Centrafrique nekk na ñaari dëkk. waaye tamit ay dëkk nekk ay xarit euh, te Afrique centrale la ñu bokk kontaan naa lool ci li ma euh, weccante xalaat waaye tam ci moment bi nga xam ne dafa marqué seen fête national waaw comme vacance yi la lool nag lu am solo loo xam ne dañuy pratiquer basket te centre Afrique aussi euh, dëkk la bu ñu jege waaye itam suñu dëkk xaritoo la te c'est l'Afrique qui gagne. donc c'est l'Afrique centrale qui ñu ëpp fukki junni yu yeewoo senegal moo ne amuñu ambassade si réew mi ñuy woo njiit yi ngir ñu jug ci lool nous attirons l'attention de l'État. waaw dañuy attirer attention ci état bu Sénégal ci situation bi nga xam ne moom la suñu communauté di euh, jànkonteel la ñu leen di woo rek ngir tamit ñu mën a baalante waaye fexe daal ba gën a renouveler seen i euh, papier ci autorité yu centre Afrique war nañu mën a xool ni naam euh, ndaw ñi yu centre Afrique ñu fi Sénégal te war nañu mérité ñu gunge leen. c'est un grand danger ànd ak loolu ñoom doomi centre Afrique yi di bàyyi xel bu baax jafe-jafe yi seeni réew di dund ci jamono yi.